yaay góor billaay yaay góor barki alxuraan yéenay góor yéen avocat Ousmane Sonko yéenay góor laa wax yéenay góor. yaay góor kenn kenn duñ ñoom. wante yaay gor yàlla yàlla may gudd fan ak wér gi yaram ak tànn yàlla bu la dara jotati lépp lu la nar a yàlla na ñëw si man ma yóbbu ko géej sànni ko sa xaj. yaay gor ak projet bi. amiin amiin ci yaakaar yëpp. amiin amiin yaay góor. gëm naa